Amara Diouf ginnaaw bi nga xamee ne jaar na ci équipe nationale U17 fubal na maxim bu njëkk ak équipe bu A bu Sénégal démb ba Sénégal di jàkkaarloo ak Rwanda dugg na ca maxi boobale mu nekk xale bi gën a seen ci histoire footballu Sénégal jaar équipe nationale bu Sénégal bu A nekk xale boo xam ne mi ngi am 15 ans man fubal lool am capacité polémique bi bari ci moom lool ginnaaw ba ñëpp di wax ne. Afa Amara Diouf bi daf ëpp wante daal ñun liñ ciy wax mooy bu ñu xoolee xale bi nga xam ne mooy Lamine Yamal nekk fële ca Barcelone am 15 ans 16 dañuy nangu Afa Amara Diouf bi nga xam ne moom la joxe ci ay këyitam ta am na lu ci xalaat tii fi jotoonoo def ci li nga xam ne mooy histoire ak année bi mu juddu ak année yi nga xam ne euh, ay 2019 ba ci 2015 ni Amara tolloon kon ku bëgg a weddeeg werante dangaa xamul li ngay weddi waaye amara mi xale bu ndaw la du ñu dañ nag di ko ñaanal ak di kontaan ci moom pour mu jóg di def ay performance yoo xam ne yu réeree lay doon ci li nga xam ne mooy fubalu Sénégal ndax xale la boo xam ne am na doole mën na fubal te am na benn sañ-sañ boo xam ne mi ngi ci moom un contre un da lay kon Amara ñu ngi koy wax bonne continuation fi nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal